loxoy loxoy loxoy loxoy tukki boolu toroxoon te yow daal xaalik Usmaan ziyaare ji Tuuba tu sapu galas baayu mbee Tuuba ziyaare ji Tuuba ni na baayu mbee eh, eh, duma dégg daare ji Tuuba tu xayril xalqi an xayri rabbi مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله dootu ñu bind ku mel ni Seydina Muhammad ku sopp yaa Rasulullaah jógal taxaw ñu màggal borom barrière or ba ca Madina la xalqa mislo alayhi salaam man loona man kalmi Muhammadun al-ma'ruf maa'in wa maaniyun وبالإيز مخصوص مسؤول عن الوزم سيدنا محمد مجيب مجاب مرتدا لكل دام مبيء ومبؤوس إلى الغرب والعجم مديع جلانا جانا محلل منيء ومحسوم من الناس والوزم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم ما لا أني بالنبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا من الله رب العرس يبقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم سبحان ربك rabbil al-mursaliin walhamdulillaahi ñu ngi leen di baalu xaq te ngi ñaan subhaanahu wa nañu boole baal ñu ngi jiital ci nuyoo bi al aimma wal ulama yi ñu fekk ci koñ bi nuyu délégué de quartier yi nuyu maire yi ñu fi fekk jaare ko ci monsieur le maire Alioune sàll nuyu fa tabarakallahu association bi jaare ko ci président soxna Absa soxna Absa lii waaye nuyu Adja Kiné Ndiaye mi nga xam ni moo koy coordonné ba yàlla dogal ñu agsi fi nuyu ñu wër taabal ji di tagg rasulillahi yépp jaare ko ci Sidi Ahmad Sam xaaji bànd ak ñi ñu àndal ñépp mbokk yi guddi na guddik jàmm dañu daje am lu ñu bind ci carte yi am lu ñu def ci affiche yeeg banderole yi yàlla dogal ñu tardé boo tardé nag da ngay soppi doxin boo tardé da bi ñuy départ Thiès di jël autoroute bi noon nañu quarante cinq minutes ñu agsi waaye biir géejaway gii ñu baare ko xaali fu ne dugal nañu fa ñuy dem di wëlbatiku ko rek ba agsi ci jàmm ak salaam waaye nag dañuy wax ni yoon du tardé jàmm rek mooy tardé am nañ ñëw nañu ci jàmm waxtaan bi groupe bokk jom yéen a ngi jël thème boo xam ni yéen a ngi ko jël ci moment boo xam ni fii la thème bi jaadoo loo xamante ni la biig jëlee naa ci Serigne Issa Touré ndax démb ñu ngi fanaan Kirène ñu ngi conférence jëppal mu tas ñu dem fanaani Kirène ba ñu fa jógee dem daara ja fa la ñu jóge jubal si fii incha allah bu ñu jógee fii daara ja la ñuy dellu waaye dégg naa biig mu ni biig dégg naa Serigne Issa Touré mu ni lenn rek la ñépp soxla nit ak lu dul nit lu dul loolu ñii dañ koy soxla ñii duñ ko soxla ñu ni ko lan la mu ni jàmm na boo nee xaalis am nañu ko soxla am nañu ko soxlawul boo nee ma nit ñépp a soxla xaalis ma ni la bàyyi ma yi soxlawuñu xaalis ndax xamuñu ko lu mu doon rekk ñii dañuy soxla ñii duñu soxla waaye nag bu ñu nee jàmm nag ni nit soxlaa jàmm noonu la xar mi soxlaa jàmm noonu la bëy bi soxlaa jàmm sëriñ isaa bi dem na ba ni jaan ji watatu ba màtt la sax noonu la soxlaa jàmm ngeen jël benn temp ci jamono joo xamante ni waxtaane jàmm jot na xam nga lu tax mooy jamono jii ñu toll caméraman dooma baal rek nga def ni tuuti mooy jamono jii ñu toll baal leen ma rek waaw kañ xaw a kii nii jamono jii ñu toll di waxtaane jàmm mooy jamono ji nga xam ni diggante jëkkër ak jabar jëkkër a ngi rey jabar jabar a ngi rey jëkkër diggante jëkkër ak jabar du ma wax góor ñi du ma wax jigéen ñi dama ni ñun ñépp xam nañu li xew ci àdduna bi guddi yi ñu toll te duñu wax sax àdduna bi dañuy wax senegal ndax lépp Sénégal la xewe jamono ji ñu naan nañu waxtaane jàmm jëkkër mu ngi rendi jabaram jabar mu ngi rendi jëkkëram ci diggante boo xam ni jàmm bu ñu ko doon jëmbat fa la war a jëkke ndax wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma suñu boroom subhaanahu wa taala nee na diggante jëkkër ak jabar daal ñaar yi rek moo fa war a ñu ni yàlla ban ban mu ni cofeel ak yërmande est-ce que ki nga sopp di ko rey est-ce que ki nga yërëm di ko rey diggante boo xam ni yàlla nee na ñaar laa fa def cofeel ak yërmande ñu ñëw ba 2018 jëkkër di rey jabar jabar di rey jëkkër 2019 ñu dugg première dimanche 2019 waa bokk jom doon ay jigéen sol yu weex tàll baas baas bu weex tàll ni nañu waxtaane assalaam muy jàmm jàmm olof day wax ni ci la lépp xaj wax na dëgg seen tànt bii bu jàmm amul du sotti maara day taali li gën a gàtt rek maara day taali li gën a gàtt mooy léegi nii waxtaan wi ku bëggoon mu yàqu da nga fi rek téll benn nit rek damm baaraamam waxuma tànk waxuma rey téll nit fital rek dam baaraam ba damm conférence bi day tas kon bu fekkente ni bu fekkente ni jàmm bu ñu ko amul du ñu mën a conférence jàmm bu ñu ko amul du ñu mën a def appel jàmm bu ñu ko amul du ñu mën a dem xadaratul jumaa jàmm bu ñu ko amul du ñu mën a màggal waa léegi nag ñu soxla jàmm ni nañu waxtaane jàmm ñu ni ci yoon la jaar pour waxtaane jàmm ñu ni nañu waxtaane jàmm ci diine lislaam ñu nuyu délégation bi si hmm? Sëriñ Xaadim Mbàkke ak ñi mu àndal ñépp ñu nuyu ko dalal ko jàmm dégg nga dalal ko jàmm sax ngay dégg bismillah mbàkke mbàkke ñu ngi ziyaar bu baax barakallahu mbàkke alhamdulillah mani jàmm laajee baatul dañu ne mu mu ngi firi mooy jàmmal jàmmalaate mu ngi jóge fan aslama jàmmal na yuslimu jàmmal islaaman ak jàmmalaate mooy may ñépp jàmm mooy diinul islaam yi ñu ko firee ci li gën a siiw mooy diiney jàmmalaate waa léegi bàl ma rek ma laaj leen bu ñu waxee diiney jàmm est que diine lislaam kon warul am jàmm boo waxee maafe kànje maafe kànje est-ce que doo du am kànje boo waxee maafe maafe maafe gerte ma ni maafe gerte ndax du am gerte ca biir du ko dina ko am wala du ko am waaw kon boo nee maafe gerte lu nit ki gàtt xel gàtt xel xam ni maafe gerte manul ñàkk gerte lu nit ki gàtt xel gàtt xel boo nee maafe kànje dina xam ni maafe kànje moom manu la ñàkk kànje kon bu ñu nee diiney jàmm kay jàmm manu cee ñàkk yéen may dégg lu ne mën na composé maafe gerte lu ne mën na caa dem mais gerte bu ca ñàkkee doonatu ko kon diine lislaam bu ñu ko tuddee bu jàmm amul doonatul diine lislaam déedéet doonatul diine lu waay di def lu ne te jiitalu ca jàmm na ko tudde leneen waaye du diine lislaam ndax dañoo wax diiney jàmm kon bu ñu nee diiney jàmm yi koy composé day am jàmm assalaam gis nga lislaam boo dee julli sax boo ci biir taaye ji ñaan yëpp doole mooy assalaamu aleyna yàlla nañu yàlla defal jàmm booy génn ci julli gi yàlla ni la comme yaa ngi génn loo ñaan ñu nangu ko ñaana lépp importance nga ni asalaamu aleykum te yow rek a doon julli mooy yéen ñi ne sama ndeyjoor yàlla na ngeen am jàmm ñu nii asalaamu aleykum yéen ñi jàkkaarloog man yàlla na ngeen am jàmm asalaamu aleykum yéen ñi nekk fii ba ba ngay dem parcelle yàlla na ngeen am jàmm kon jàmm dafa yitteel lislaam senegal nag coow li bari na fan yii yëpp ah fan yi yëpp yéen xam ngeen seen datu conférence bi jarul may wax muy nuru dara laata ngeen cee jot li ngeen daj pour am ko xam ngeen ni yàlla dogal na macha allah bu ma ci jàppul woon du ngeen conférence ren fii ba decembre mille décembre 2019 du ngeen am samedi du ngeen am dimanche du ngeen am ajjuma loolu moom leeroon na seen bopp maa ci jàpp am lu ma génne mën leen a dugal ngir lan ka yor ba moo juum waaye mani conférence yi ma def mën naa ni fi ñu toll nii mille 2018 ak léegi bi ñu duggee mois de juillet ak léegi mën naa ni 60 pour cent wu conférence yépp ci jàmm la ñuy wax boo duggee ci internet bi lii may wax nii fees na ci dell dell fépp jàmm la ñuy wax koo dem rek thème bi lan la mu ni jàmm ndax élection yi waaw mais jàmm nag lii moo koy composé pour mu am nabi sallallahu alayhi wa nee na almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi jullit jullit aji jàmmalaate ji aji jàmmalaate ji ñu ni ko ah ya rasulallahi mu ni mooy ki nga xam ni jàmmal na jàmmal na nit ñi jàmmal na jullit ñi bi lisaanihi ci làmmiñam est-ce que ñun may nañu nit ñi jàmm ci suñu làmmiñ yi koo wax mu ni jàmm te ku ni rat ku ku àddu rek mu waxee nga gis ni kii li muy wax bu ñu ko toppee du jàmm baal leen ma li may wax xam ngeen ko dugg leen ci internet bi ku bëgg jàmm doo saaga te ñun ñëpp a ngi saagaante pour ma bañ a tooñ ñun ñëpp a ngi saagaante mag ñaa ngi saaga xale yi xale yaa ngi saaga mag ñi góor ñaa ngi saaga jigéen ñi jigéen ñaa ngi saaga góor ñi te li waral saaga yi intéressé ñu mooy foo ci dugg fu ne ci page yi ñuy saagaa ñoom lañu gën a ñoom la ñu gën a ko ah, xool ñoom la ñuy gën a ñoo ëpp ay vie da à page yi nga xam ne dañuy jàngale diine dugal ci site internet yépp page yi ñuy saagawaate ñu ëpp lu ñu leen di visiter fuuf page yi nga xam ne ci lañuy jàngale diine ba pare ñu ni dañu bëgg jàmm te yonent bi sallallahu salaam wasallam ni sëriñ xaadim jàmm daal jullit daal mooy ki may nit ñi jàmm ci làmmiñam am na koo xam ni am na jàmm waaye moo moo taal ay am na loo xam ne ku ko wax ci pénc nga wax ko Kiné Njaay jóge ci Kiné Njaay ñëw ci présidente absolu wax ko daldi toog ni ah man de sama kudd jàmm la ràcc ñoom ñaar ñuy rayante te fekk sa kudd googu ràcc jàmm yaa taal ay wax ba ci defar bi Sénégal benn diggante bu yàqu kenn mënatu ko defar xam nga lu tax mooy diggante bu am tuuti lu ndaw rek ñu def ko ci internet bi saaga yoo xam ne dañ ko def ci internet publicité ah euh, ñu publier ko kenn ko ne paas ko sa boroom partage ko foo dugg fekk fa saaga bu ñu saaga diggante booba même bu ñu leen defaree nit ka bu duggee ca net ba bu gisee saaga ba rek xolam jóg te yonent bi noonu na dangay may jàmm nit ñi ci sa làmmiñ lan laa bëgg a wax mooy ndekete kuy wut jàmm doo rambaaj ñaata rambaaj a fi ci réew mi ñaata rambaaj te yonent yàlla Musaa alayhi salaam dafa jekki ba mu yàgg waa banu Israayiila tawul foofu amul taw ñu bekkoor lool ñu ñëw ci yonent yàlla Musaa ni ko ñaanal ñu yàlla pour mu taw Moussa di ñaan yàlla ni ko dëkk baa ngi baawu naan dañoo bëgg yàlla nga dimbali leen may leen am ndox ndax jur gaa ngi dee ah, mbay mi baaxul ngir lan amuñu ndox yàlla ni ko neel waa dëkk bi duma taw ndax dëkk bi dafa am ab rambaaj bu fi ne benn rambaaj Moussa ñëw ci waa dëkk bi dajale leen ni leen suñu borom nee na du taw ndax dëkk bi dafa am benn rambaaj bu fi ne te fekk rambaaj bi di fi nekk du taw waa dëkk bi ne ko Moussa problème bi kay rek réglé na léegi benn rambaaj a fi ne mais benn nit warul tax ñu sacrifier population bu ne lëmm léegi wax ñu rambaaj bi kan la bu ko defee ñu rey ko mbir mi jeex. musaa ñëw ci yàlla ni ko waa dëkk bi nee nañu comme rambaaj bi mooy problème mu ndox mi nga wax leen rambaaj bi ñu liquider ko problème bi jeex xoolal li ko yàlla tontu yàlla ni Moussa boo demee nga ni waa dëkk bi bu ma leen waxee kan mooy rambaaj bi ñu rey ko man yàlla maay doon rambaaj bi nee ko dëkk bi yépp dañu àndandoo tuub bu ñépp tuubee rambaaj bi tuubaale man yàlla ma wàcce taw lii nag mooy waxtaanu senegal fi mu ne bu waxtaan wi kii yee rek ñu ni est bu seen yaram tàngee ñu jóg sarax la waaye bu ñu ñibbee dellu ca la ñu nekkoon moo tax da dem ba ci yàggi sax dootoo sawar billaay sawaratu ba ci waxtaan toog ca daara ja jàngale billaay moom a ko gënal fi mu toll ndaxte dama gis ni lañu waxoon man defe naa ni bi may tàmbali waxtaan aw ma ñaar fukki at waaye boobaak léegi daanika la ñu waxoon rek la ñuy waxaat te dafa mel ni la yàqu woon dafa gën a yàqu la baaxoon di gën a yàqu ma ni est-ce que kon du ñun ñuy wax ñooy yàq te ñoo noppi mbokk waaye benn waaye dama ko wax mu ne ma déet ëpp naa def mu ne ma yéen li ngeen di wax yépp ba pare ñu yàqu nii bu ngeen noppi woon àdduna bi tas kon wax leen rek lu ñu ci am jël mooy rambaaj déggal yàlla nee na bu ma waxee kan mooy rambaaj bi ngeen rey ko man yàlla maay doon rambaaj bi te man du ma rambaaj na ñépp àndandoo tuub xam nga lan la bëgg a jàngale mooy ndekete kenn ku ne ci ñun na jàpp ni fitna bi ci Sénégal yow la kenn ku ne ci ñun defaru bul jàpp ni kenn la bu kenn jàpp ni kenn la kenn ku ne jàppal ni yow sa jëmmi bopp yaa indi fitna min lisaan bu ñaareel bi ban la wa yadihi yonent bi salaay salaam nee na faw nga may nit ñi jàmm ci sa loxo est-ce que ku may nit ñi jàmm ci loxo dina jël paaka di rey nee naa leen yàggul dara li may nettali yàggul ndax man duma yooyu mag duma yooyu mag waaye man fekke naa ci senegaal suñu kër wala boog suñu koñ tabaski jot ñuy seet ku rey xaru tabaski bi boobu ay benn benn paa ñoo ñeme woon rey ñeneen ñépp nanguwu ñoo rey ndax ragala reen di ragala reen di xar da ngay gis benn paa koñ bi yépp mooy takk ndiggam bu ñu julli jee tabaski ba ñëw mooy rayal ñépp booba gis naa ni kër gu mu dugg di reen di xaru tabaski ba boroom kër gi ci boppam du ñu mee rendi day ñëw ci gannaaw ki koy rendi jàpp ci ndigg li aawa bi ñëw jàpp ci ginnaaw boroom kër gi ñaareel ba jàpp ñetteel ba jàpp bu dee ñeenti jabar ñeenti ñépp dañuy jàppante doom yi jàpp bu rendee ba yëkkati paaka bi waa kër ga ànd sar xolle mu samp paaka bi ma ni booba jàmm am na waaye léegi aawa bu bu ñaareel jàpp ci ndiggam nga ne ko baal ndigg li ndigg li xamoo ndiggum lu nu ba koy téye parce que jàmm amul boobu am bi jàmm di am man xàmmee naa suñu kër gis naa ni sama baay am na ay soxna waaye pour nga xàmmee ni mbub mii sama yaay ak moom mbubb mii sama tànta manul ne ndax kenn ko ne bii ngay sol tey suba nga sol dañuy solante léegi bi jàmm ñàkkee est-ce que loolu jigéen ñi am na waaye bareetul dafa wóoratul sax ndax wóoloon teetuñu ñun firikat yi sax wóoloon teetuñu man damay conférence di fomp di sànni ñu ne ma sa ñaq mii ngay fomp di sànni buñ ko jëlee dañ la ciy liggéey dem naa ba léegi bu may conférence musuwaar yi sama poos laa ko ah wóorul di benn waaye ni ma da gëm liggéey ma nu kaa ah comme def sama poos wàññiwu ma dara baal ma def ko ci rek jàmm kon jàmm waaye mënoo am jàmm yow mi maye jàmm nit ki nit ki mënula am jàmm te mayewul jàmm ma ni mënoo am jàmm te mayewoo jàmm waaye it nag mënoo maye jàmm te sa xol jàmm newu ci léeg ma wax ko Chérif Maami Aydara yal na yàlla may ko wér te yokk fanam sama doomu nday jooju dama ko ni Aydara mu ne ma labbayka ma ni ko gis nga jàmm jàmm jàmm boo bindee baat bi 6666 nga takk ko ndomba bind ko 6666 sangoo ko bind ko 6666 gas sa biir kër suul ko fa yore sa kurus di dox jëm Tamba yaa salaam yaa salaam yaa salaam ba Tamba nga doxe Tamba jëm si Géejawaay yaa salaam yaa salaam yaa salaam ba sa biir kër te yéene woo nit ni jàmm ma ne ko doo am jàmm olof wax na ko yéene néeg la boroom a cay fanaan kon ndekete kàmb goy gas pour sa nawle natt ko ci sa bopp bu dee kàmbu jàmm nattal ci sa bopp bu dee kàmbu leneen nattal ci sa bopp مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا xool lislaam mboolem xeet yi mboolem diine yi am nañu nu ñuy nuyoowe lislaam rek mooy ñëw baatu jàmm di ko nuyoowe asalaamu aleykum yàlla na nga am jàmm ñii dañu naan hello ñi naan saba ñi naan bonjour ñi naan jaajëf ñi naan kasu may dem nañu ba léegi xale yi bu ñuy nuyoo sa nii lañuy def ay kurfañ ñenn ñi ni nii mais diina lislaam ni diine lislaam ni kuy nuyoo waxal asalaamualeykum yàlla na nga am jàmm moom it mu delloo la wa aleykum salaam yow it yàlla na am jàmm wa rahmatullahi ak yërmande léeg-léeg mu dolli ci wa barakaatu ak barke mais xoolal lii bu saxoon ci suñu diggante yi ba pare nag ñu gëm ko ba pare ñu gëm sittuna aïcha radiallahu anha dafa toog ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawut yi romb yonent bi daal ni ko assalaamu alayka ya rasulallah yaa Aïcha siggi ni leen yonent bi ni leen wa aleykum yaa Aïcha tourné ni leen eh eh eh eh ayyuhal yahud wa aleykum saamu wal laanatu wal xadabu yonent bi ni ko Aïcha looy def nii lii lan la sa yuuxu yëg sa wax ju metti ji yàlla na ngeen dee yàlla na leen yàlla rëbb yàlla na leen yàlla mere mais lu waral ngay defee nii mu ne ko xanaa déggoo liñ la wax sang bi mu ne ko luñ ma wax mu ne ko waxuñu la asalaamualeykum de seen làkk assalaamu aleyka mooy yàlla na nga dee loolu lañ la wax yonent bi ni ko man même bu doon dégguma ko wa aleykum laa leen wax ak yéen te man yàlla dina nangu sama ñaan te du nangu seen ñaan yàlla ni jibril demal ci sang bi nee ko na wax gaa yi ni leen wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha bu ñu leen nuyoo tee nuyoo ba ñu leen nuyu nuyoo leen bu gën a rafet boobu baa ngeen nuyoo bu toll noonu sang bi ne ko ban nuyoo mu ne ko yàlla nee na ngeen di nuyoowee assalaamu aleykum bu ñu la nuyoo assalaamu aleykum nga ni wa aleykum salaam wa rahmatullah bu ñu la nee assalaamu aleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bu ñu la nee assalaamu li gën a néew neel wa aleykum yàlla nee na pour mooy tandikuloo ñu fitna wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa mooy tandiku leen fitna wit fitna baaxul ñu ne yaa rabbi lu tax mu ne li olof di wax ay du yem ci bopp boroom ba élection dalay am Sénégal ak léegi yu ci bari nit dee ci waaye ñattaal ay wax du ñu ca dee kon ay du yem ci bopp borom man sax ñu bari ci ñi ma gis ñuy dee ci élection ay nit lay doon yoo xamee ni yal na leen yàlla yërëm waaye lu réew mi yàggoon yàgg yaakaaruma ñoom ñu doon président ba député sax nag mooy ay du yem ci bopp boroom kon fitna lan moo waral yàlla ni mooy tëddikuloon fitna ndax ay du yem ci bopp boroom damay nettali léeg-léeg benn anecdote nettali naa ko lu bare bare bare bare bari boo demee ci ruuxul bayaan di nga ko ci fekk ndax moom aaya bu mu firi da lay indil anecdote ca wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu daa jekk ba mu yàgg muy nettali benn xeex bu amoon entre sindax ak unk ñoom ñaar ñu ngi xeex ci kaw néegu ñax bi néegu ñax bi sindax ak unk di xeexe néeg bi boroom dëkk bi yaayam moom néegam la fa la dëkk bi ñuy xeex xaj romb xeex bi waaye yéen du ngeen bàyyi seen xeex bi ñu ne koy luy sayoon ci suñu xeex continuer seen xeex xaj génn foofu romb mbaam ne ko dooma jàppale ñu dem àtte ñeeri xeex mu ne ko nag xaj sob nga de yow luy sayoon ci xeexu si ndax ak unk doo dem toogi te bàyyi ma waaye man sama yoon newu ci mu ni ko bu sottee di nga xam sa yoon a gi cim déet xaj romb nag ni ko nag kaay ñu dem nga jàppale ma ñu àtte si ndax ak unkumee di xeex xeex baaxul mu ni ko lu ciy sama yoon xaj ni ko bu sottee di nga xam sa yoon a gi cim déet mu dem ci fas wax ko fas tontu loolu mu dem ci xar wax ko xaru tontu ko loolu ah xaj dem toog sëngéem ndax amul pexe ñoom ñaar ñuy xeex ci kaw puñu néeg bi ba yàgg ñu daanu ci ànd bi bi ñu daanoo ci ànd bi étincelle yi jàppal sàkket bi sàkket bi tàkk néeg bi tàkk yaayu boroom néeg bi lal ba jàpp mu dee xanaa kon ña doon xeex dee nañu reyaale yaayu boroom néeg bi ñu ne ah dëkk bu rëy am na ci dëkk bi waaye léegi lu ñuy def ñu ne ah d'abord comme waa dëkk bi ñépp fi la ñuy añe nañu jëli xar ñu rey ko pour añe ko ci dëj bis bu bees bi comme suula ku ñu ñu romb ak xar mu romb xaj xaj ni ko yow lu xew mu ne ko yaayu boroom dëkk bee dee waa lu ciy sa yoon mu ne ko man lañu war a añee tey mu ne ko bu sottee di nga xam sa yoon a nga ca xeex baam déet ñu rendi ko ñu ne nañu tàggee ci jël fas jox ko xale bu sawar muy daw mu romb xaj foo jëm mu ne ko damay tàgge ji yaayu borom dëkk bee dee mu ne ko ba nga topp naaj bi ba ñëw ba xam ba mu tàgge jee xale bi dawal ko lépp bi mu ñibbisee biir bay daw mu daanu dee ñu dem ñetti fan yi ñu romb nag xaj ni ko yow lu xew mu ne ko tey la ñetti fan sarax si tey la man la ñuy rey pour dëj bi mu ne ko bu sottee di nga xam sa yoon a ngi ceem déet ñu dem ba dëj ba ngoon bi ñu saraxalee ba ngoon ñu jël bagage yi yàpp ko ci mbaam sareetu mbaam di delloo bagaas yi xaj ni ko yow foo jëm mu ne ko bagage si néeg bi laay delloo mu ne ko ba nga pare ci guddi gi la mbaam dee ndax coona ñu xëy dajale gaal yow la desal ca ñam yow yépp yóbbu ci gaalu xaj xoolal xaj mi doon wut jàmm moom moo mucc ca ay wax moo tax yàlla ni wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa bul ni sama yoon newu ci déedéet réew mi coow li bari na saxaar si bari mani waaye ñun ñépp suñu yoon a ngi ci saale biige dama dem man ak Chérif Maami ak Souleymane dañu dem tournée Europe gàddu suñuy wëliis dem war a def treize programme at boobu Paris Bordeaux Marseille Italie fu ne daal ñu war a dem yàlla dogal ñu ni tëll rek Charlie Hebdo am benn waaye explosé fa ñoo ñu explosé woon ñu daal ni Europe bi yépp dañ fi tere événement te ñun dañoo agsi rek mbir mi am defaguñ benn programme ma ni Chérif ñuy def ma ah doom ndey man naam gars yi dinañ wàññi parce que trois mois lañ ko def te ñun deux mois rek lañ fi waroon a def ñu toog gars yi def ko trois mois léegi problème bi ñu am ñun mooy yorewuñu xaalis te suñuy billet def nañu aller bi ak retour bi te fokk ñu dolli pour billet bi ñu mën koo kii man ko wàññi pour ñu mën a ñibbisi ci saasa léegi conférence suñu ñibbisi wuñu toog Europe googa rek ca Paris daal la ñu toog fu ñu tëdd tey bu subaa ñu tëdd feneen digg diri suñuy wëliis fu ñu dem tey moo gën a yomb bu ñu fa jógee dem seeti hôtel bu gën a yomb di fu nekk ñu law lawaan fa ba mbir ma jeex ñu gàdduwaat suñuy wëliis ñibbisi ak suñuy loxoy kese ak suñu bori dépense waaw ka doon ka doon explosé ca saar Charlie Hebdo ñun lu ciy suñu yoon waaye dégg nga yàlla yàlla lu mu wax boo ko toppee gis ko mooy ay du yem ci bopp boroom yàlla nee na subhaanahu wa taala wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa gis nga réew mii ne réew mii ñu ne réew mii ne réewum jàmm la waaye réewum jàmm la du réew mi moo sax jàmm ñi fi ne ñooy ni ci jàmm xoolal Cheikh Ahmad Bamba xayrul xadim ba mu àndee ba mu demee tubaab yi tooñ ko def ko liñ ko def yépp mu ñibbisi bu fi nekkoon di fayan toog tubaab yi est-ce que dina am li mu am tey tey orop foo dugg boo nee Ahmad ba ñun la senegaal boo nee Sénégal ñun la ndax xam nga Serigne Touba Espagne ak Italie ak xoola cafétéria yi café kafe yi sax boo ca duggee ba ci baar yi laa wax nga xam seen yoon new ci ñooñu dañuy naan ak lépp boo duggee boo nee Sénégal liñ lay laaj kay mooy Alaaji Diouf Abdou juuf sëriñ tuubaa mais kon lu ko may loolu mooy ku dë mooy jàmm ja mooy ba mu demee ba dellu si mel ni bi mu demee ba dellu si mel ni suñu boroom da ko ni takk nga garaatu xaadimu rasulillahi ñi la tooñ fitnaal la teg la liñ la teg waxal loo bëgg man nga ñaan ko ma jëflante kook ñoom mu ni yàlla man jàmm rek laa bëgg irham jami al wara waxuma ñoom waaye min ah, melentaan yeeg si ndax yi sax may leen jàmm ne ñëpp am jàmm rek yàlla jàmm gis nga lislaam jàmm waaye jàmm waaw yow de am nga jàmm jàmm jigéen ñi sañu ëpp jàmm góor ñi waaw jàmm man sur caam nee naa leen nee naa leen góor gu ci moytuwul saraxu góor ñi lii nga dee ci tànt ñoom dañuy xaar ba nga wax lu ko jar ñu door laa sarax léegi léeg da ngay gis firikat feek ñaqoo bay siit góor ñi duñ la sarax ndax dañ naan waxagu fi dara waaye jigéen ñi ñoom ñoom danga naan bëreet rek ñu daan ni ah sëñ bi déet yow mu mbokkoo ci nag sëñ bi yow ñoo la war a jox àddiya mbàkke mbàkke balla ay saburi kii nëgal ma ber ko fii ndax fa mu jóge moo tax bu ko defee bu ma demee am nu ma ci def waaw kañ mbàkke ma ni maa ngi woon ci jàmm diine lislaam diiney jàmm la ah ndaw yàlla boo ko ñàkkati sëñ Haj Malick nuyul ma xaaji baaba sëñ baaba ndaw ñoo ko fi teewal faal faal faal faal faal sama jigéen faal sama jigéen sama yaay yàlla bu leen ko ñàkkati waa lingeer mm, ah, lingeer yu amoo tefes ñu ngi nii ñëw fa tabaarakallaahu léegi nii rek nee naa leen yeen seen conférence fi gën a regle parce que ab militaire ko géré lu dul conférence duñ ko def conférence yëpp yàq nañ ko waaye yéen seen bos moom ba tey mu ngi normal maa ngi dem ma ni wa in janaxu lissalmi fajnax laha wa tawakkal allah xoola dina lislaam dafa bëgg jàmm bëgg jàmm ba rasulillahi sallallahu alayhi dafa toog bis dafa yàlla yónni jibril ni ko demal ni sang bi ñaari jullit yu daje ku ci jëkk a nuyu moroomam yàlla nee dina la tabaxal pale biir aljana te nuyoo bi lan la mooy asalaamu aleykum Babacar ñëw seet si yonent bi salaam yonent bi wax ko li Jibril wax Babacar ñëw seet si rasulillahi yonent bi wax ko li Jibril wax ñoom ñaar gisante wuñu ci ngoon gi ñu daje Babacar di moytu Omar Omar di moytu Babacar xool sa moroom di xaar Babacar daw dem ci rasulillahi bi muy daw Omar a ngi daw ñoom ñaar dañu ni tëll duggandoo Omar di jooy Babacar di jooy sang bi ni li ngeen di jooy lan la li ngeen di jooy lan la lan la Babacar ni ko Omar mii laa lay kalaameel dama ko romb mag ko fuuf te nuyuwuma dama la bëgg laaj nag lan moo waral Omar bi ñu dajee nuyuwuma Omar ni ko billaahi lazi laa ilaaha illaa wa sang bi Babacar boo gisee nuyuma ko moo ma jiitu ci lislaam Babacar léppam mu def ko ci yow nga ni ñaari ma ñëw sa kër nga ni ñaari jullit yu daje ku jëkk a wax sa morom asalaamualeykum yàlla tabaxal la pale biir aljana ma ni naa xaar Babacar mu jëkk maa nuyu bu ko defee moom mu jël pale bi ndax moom laa ko gën a yéene Babacar yuuxu ne sang bi gis naa ko ci yàlla mi nga xam ne sama noo yi gi génn bu duggaatee moom la neex dama ni Omar mii ñun bi ñu doonee 39 la ñu ñemewul ba mu duggee moo ko ñeme ba ñu génn mu yëkkati baatu laa ilaha illallah kon nag benn pale man Babacar rafetul ma di ko jël di bàyyi Omar yaa rasulallahi billahi lazi la ilaha illa huwa dama ni naa bàyyi Omar mu nuyu ma pour mën a jël pale ba ndax ki jëkk a nuyu moo koy moom te du ko jël bàyyi Omar yàlla yónni Jibril ni ko demal ni rasulillahi gaawam yi li ñu wax ñoom ñaar ñépp dëgg la mais ku ci nuyooti sa boroom ni ko assalaamu aleykum man yàlla dinaa la jox pale mais def naa beneen pale ca wet ga kani wa aleykum salaam moom it dina am pale biir aljana xoola buñ fa nekkoon di xëccoo ñun fii léegi bu fi kenn ñëwoon ni président ma fi yabal moo ma jox enveloppe bu dix milliards bi comme lebal nañ ñu sept mille xaw ma lan milliards président nee na dix milliards yi ci xaalis bala nee na ku ci ne ci tànt bi rek naa la jox un million xam nga du jeex mais billaahi bu ñu xëyee suba xam nga looy dégg conférence su Géejawaay ba tant de morts tant de blessés ndax dañuy gaañante Seydi Mbaye tëbee fële xëj sama dara ji ma ne ko li ma Seydi te bu doon luy jeex sax ñu xëccoo waaye du jeex dañoo xëccoo ba nàkk nàkku dëj sax dañ koy xëccoo xam nga kuy xëccoo lu dul jeex bay xëccoo nàkku dëj xam nga buñ la diggee pale aljana doo bàyyi sa waay di ko jël kon jàng gis nga pour ñu am ko dañu ko yéenente dañu ko yéenente mooy lan saa bu fitna duggee ni tàllal fital dugg ci tànt bi man tafsir ma ñemee koo song daal ne sama yaay yii duñu tànt tànt bu rafet bii may bàyyi kii di leen rey ñëw ni ko dóoral dóoral di ko song pour man na ma rey mais yéen ngeen sauvé waaye bu doon ko yor buy ñëw maa ngi ci ron taabal ji waaye bu dee ku yor xaalis wala ku yor njëriñ ñu xëccoo ko te dañu wax ni laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi pour jàmm am kenn ku ne pour sa bopp da koy bëgg pour sa moroom déggoo ma pour sa bopp da nga koy bëgg pour sa moroom léeg-léeg olof ni lu la yéene yàlla naa la ci jiitu bu yàlla doon nangu ñaan yooyu heureusement que du ko nangu dañuy wax rek yaquluuna bi afwaahihim maa laysa fi qulubihim suñu borom ne suñu borom ne am na ci am na ci yéen jullit yi ñoo xam ne jikkoy naafiq la ñu yor ñu ni yaa rabbi seen jikko lan la mu ne li ñuy wax ci seen làmmiñ ak li ne ci seen biir xol yi du benn gaa yi jullit yàlla nee na subhaanahu ngir wan leen jàmm ni mu amee importance bu ñu nekkoon ci guerre ñu ne ci guerre nga daje ak benn waay mu sol teni sa adversaire en tant que jullit boo dajeek moom bu nee la asalaamualeykum rek yàlla nee na amatoo droit rey ko wala taqulu liman alqa ilaykum salaama yàlla boo ko ñàkkati lasta muminan xoolal ñun jullit yi dañu sol yu weex di guerre ak ñoo xam ne yu xonq lañu sol ma ni tëll man tafsir xàcc sama jaasi jëm ci ko sol lu xonq mu ne ma aleykum yàlla nee na ma tegal sa jaasi ma ne ko yàlla bu dee day tappale pour ray ma nag mu ne ma loolu sa yoon newu ci bu la reyee nga dem aljana waaye ku la wax asalaamu aleykum amatoo droit def ko lu ñaaw jàmm suñu borom nee na subhaanahu wa taala bu ngeen àndee ne ci benn xeex entre jullit ak kudul jullit yàlla ne ñu dem ba mu yàgg wa in janaxu li salmi fajna laha ñu dul jullit ngeen dominer leen ñoom ñu yëkkati drapeau bu weex xam nga guerre bu ñu yëkkatee drapeau bu weex mooy kaay leen ñu négocier yàlla nee na teg leen jaasi yi négocier ak ñoom ñu ne ko yaa bi bu ñu tegee jaasi yi ñu fekk ñu fa nag mu ni wa tawakkal ala allah dëgërlu leen ci man rek man yàlla ndax xam naa lépp waaye jàmm nag gaa yi pour ñu am ko wax naa ko démb ci conférence bi ma nekkoon faaw ñu mooy tëndiku lii am na koo xam ne kenn mënul am jàmm ci wetam xam nga ban la mooy addis ba bi ni iyaakum wa zanna bi jiitu mooy ñaaw njort bari na diggante bu yàqu fitna dugg ca dara yàqu ko lu dul ñaaw njort lu waay wax nga ni man lay waxal lu waay def nga ni man la ko def xoolal ñaaw njort ba nga xam ni fi mu ne bu nit ñëwoon xëccaat moket bi sax nga fa xastalu sa sax daanu nga ni dafaa ñëw su eh, def fa liggéey loolu ama daane te nit ñi amuñu boobu jot dañu ànd ci oto bi ak xale yi ñuy waxtaan ci wàllu liggéeyante liggéeyante ma ne leen seen digganteek yàlla yéen ñi ci oto bi ana kan ci yéen moo ma sa liggéey nit ñoom ñépp ñu ni kenn ci ñun masu koo def man leen man de man man mas naa xoo équipe man man daan naa xoo man xoo moom daan naa ko def daje naa ak benn équipe dama leen a sëf ba nga xam ni keroog mënuñoo yëngu keroog ñoo leen gañee te bit bañ leen dugal maa ko dugal ma ni leen loolu dama ko daan def ma ni leen waaye gannaaw loolu billaahi wallaahi tallaahi amul musuma toog di xalaat ay liggéey wala na dara man leen xool leen oto bi cinq personnes ñun ñépp ñu assuré ni kenn ci ñun masul a liggéey nit ba pare ñun Sénégal ñu bëgg a gëm ni lu am rek nit a la liggéey ma ni même bu dee liggéey am na sax bu dee am na mais yàlla bu fekkente ni ku la neex rek nga liggéey ko mu dof baa mu dee kon est ce que yàlla léegi yàlla la yomb xam nga lu bon mooy tooñ mais boo tooñul mu leer la ne sa xol rafet na ma soo def nit lu ñaaw jàppal ne même bu ñu la defee lu ñaaw du dal ci sa kaw te nag li jaadu mooy li nga gëm ni yow doo ko def jàppal ni keneen du ko def ba ba nga koy gis waaye ñaaw njort lu waaye wax nga di man lay wax fi mu ne am na koo xam ne boo maytuwul mu ngi ci internet bi def nañ ma direct man naa am saaga bu ne mu ma koy saaga xam nga lu tax mooy ñëwul ci tànt bi mais mën na am jàpp na ni li may wax sax moom laay waxal ngir ñaaw njort te fekk ñépp ngay wax bu ñu bëggee jàmm am bokk na ci li ñuy mooy tandiku wala taxassasu mooy lu ñu tumbiri jàmbur gis nga nit bu la làqatoo réer ko dañu toog weeru koor am benn firikat buy firi ci jumaa ji weeru koor wi dugg na tox day yàq koor képp koo xamante ni woor nga ba ngoon nga tox amoo koor am suñu benn waay boo xam da doon tox moom daa bàyyi ba àjjuma àjjuma weeru koor àjjuma ñuy dem juma mu toog seen buntu kër teg attaayaam taal sigaretam firikat bi doon firi loolu romb ko waaye xanaa dangaa dof mu ne ko déedéet xanaa wooroo mu ne ko déedéet lu tax wooroo ah yow yaa ni bu ma wooree ba ngoon bu ma dogee bu ma tuxee aw ma koor comme aw ma ko kay duma ko ci wutante man mënumaa bañ a tux moom bu ma ndogoo ba pare moom moom damay tux moom comme nag bu ma ndogoo bu ma tuxee aw ma koor moom damay bàyyi koor gi rek benn yoon boo lëggee lu ma am jël moo tax wa taxwiifihi fi xayri xaqin sharciyin ñu la koy tere yemal fi yàlla yem rek gis nga koor li koy yàq mooy moment bi ngay woor loo def ci luy yàq koor da koy yàq waaye woor nga ba ngoon ba dog nga dem def lu bon am nga bàkkaaru ku def lu bon daal ci moment boo xam ni moment wu def lu baax la waaye nag lu yàqu koor ga luñ ñu tumbiri jàmbur nit boo ko toppee ba mu sës mu ne la maa tey baal leen ma xoolal sëy yi amatul jàmm lan moo indi jàmm ci sëy yi seetlu naa Sénégal bi fi téléphone portable xewee ak léegi ci la sëy yi gën a bari lu muy tas te sëy yu tas fukki sëy yu ñu la indil sëriñ juróom-ñett yépp dinañ ci tudd téléphone ñun def nañu code ngeen décodé ko ñun def nañu suñu baaraam yi bu ñuy nelaw ngeen jël suñu baaraam yi rëdd ci gis naa sama waajoo xam ne tànkam la jël def ko mu doon code bi moom baaraamu tànk bi waaye dañ koo jàpp gis naa sama waajoo xamante ni moom dem naa dema dem ba nga xam ni ndaw si muy labat ndaw si muy labat xoola batterie faible la ko tuddee saabu bu téléphone bi sonné rek jaba ji ne ko am batterie faible mu jël téléphone bi dugg ca ginnaaw daan ah, waaw waaw waaw soxna see fi nekk waaye noonu xam nga kii bëgg na jàmm waaye loolu yépp li ko gën a neex mooy nee na am na bis ndaw si da koo jàpp parce que ndawam si da koy woo téléphone nanguwul a jël ndaw si jël beneen téléphone woo ko ca nee na mu décroché rek ndaw sa koy ndaw sa ko doon woo ne ko ah yow man ngay bañ a jël moo tax jëloo sama numéro mais foofu laa lay fekk nangam taan saaga fo mu gën a ñaawe waa ji nee na sama jabar a ngi tëdd te maa ngi koy làqatu man maa fayu saaga bi wóoruma dégg na comme déet rek man ni ndaw sa ay waay jile ay waay yàlla na ko yàlla xare aljana waay sigi nee na jabar ji ni ko waa nijaay ku dee mu ni ko sama benn xarit bu ne boori maatam la papaam dee lan laa bëgg jàngale foofu bu ngeen ma ko laajee ma wax leen ko xam nga lan la mooy ndekete jàmm la jëkkër ji di wut ba mu jaral ko wax lu dul dëgg te xoolal lislaam ni mu bëggee jàmm lislaam dem na ba ci wut jàmm xanaa xamoo ni jëkkër ju tëdd ak soxnaam ci benn lal soxna si indi fitna jëkkër ji wax ko lu dul dëgg ngir jàmm ñëw kenn du ko bindal bàkkaaru ku fen xoolal jàmm li mu jaral lislaam fenn la lislaam gën a bañ yonent bi lu ne wax nañ ko laaj nañ ko ko mu ne mën naa am mais kera bañ ko ne ndax jullit dina fen dañu jullit du fen mukk waaye moo wax ni bépp diggante boo xamee ni dafa nar a yàqu nga wax ca lu dul dëgg ngir defar diggante ba yàlla du la bindal bàkkaaru ko fen bu defaroo doo am bàkkaar bu defarul doo am bàkkaar dama tëdd ak sama jabar pour nga dégg misaal mi ma ma teg ko loxo mu ne ma teggil sa loxo fasal ma kanam gi ma daan ne ko waa yow lii lan la mu ne ma man dama laa ba banaa la àdduna ak alaxira ma ne ko lii de seytaane la parce que man sama problème mooy fan yi yépp maa ngi daw gisoo tooguma ci kër gi xam nga lan la dama la bëggoon a defal surprise dama doon leb banque léegi banque bi nag accordé eh, nañu sama bor bi nee nañ dinañ ma lebal cinq millions mu ne ma xam nga jabar jooni dinañ ma lebal cinq millions dina wàccaat ah lan la nga ni ko man de li ma xalaatoon ci cinq millions yi mooy bu ma ci jotee jox la deux millions yi nga mën cee def commerce deux millions yi ñu defaraat ci kër gi un million bi ñu wàññi ci suñuy bor xam nga lu mu lay wax li ya tax nga neex ma yow da nga am yërmande am nga jikko lool mais da nga bari yërmande te fekk araam misaal laay joxe misaal ma ni fekk araam nga dem ba weer wi dee sa jabar naan la waaw nijaay ana pare ba nijaay xanaa banque bi nga xëy bis rek xam ni mbir mi sës na nga ni ko billaay banque bi ñoo mën a tas yaakaar banque bi daal nee nañu dañoo arrêté seen crédit yi mënatuñ maa jox te fekk banque waxu la woon dara te doo am bàkkaar xam nga lu tax situation bi nga ko defee moo tax lislaam teggi la bàkkaar kon lislaam bëgg na jàmm bu ñu bëggee jàmm am nañu moytandiku li yonent bi salaay salaam ni wala tanaafasu moytandiku leen gënante seen mbooloo mi baal leen ma mook mbooloo ci Sénégal yépp a man gisaguma ci Sénégal yax bu sew koo wax mu ni man ci yax bu rëy laa bokk géwël yi maabo yi lawbe yi joolaa yi bambara yi géer yi gànjool gànjool yi ñépp koo wax mu ne yax bu rëy laa bokk di déggaguma ko wax yax bu sew waaw comme ñun ñépp ci ay yax yu rëy la ñu bokk lu fi jar xeebante lu ko fi jar moo tax Seydina Limaamu borom ajibu daa yàllaay maami Seydina baayu Seydina Isa maami Chérif Ablaye Thiaw Laay yàlla na fi àgg te ànd ak wér bi mu ñëwee ci jamono gis ni jamono daal ñu ngi xeebante ci ay sant ñu ngi xeebante ci ay mbubb moo fi jëkk indi bu xew-xew amee mu ne na ñëpp sol weex nga xam du ñu xàmmee ku am ak ku amul bay xeebante bu ñu ñëwee kii sant mbuub kii sant gajaga kii sant gay kii sant si kii sant mbàkke mu xamee ni ci biir sant yi ñu ngi ciy xeebante mu ne na ñépp teg santu baay yi ñu sant laay ngir xeebante ba ñaam ñun na xoolal xeebante bi géwël yi nee nañu du ñu may seen doom géer géer yi nee nañu du ñu seen doom géwël te li ma jaaxal saabu tubaab bi ñëwee ñu may ko suñu doom yi nee naa leen bari na géer goo xamee ni tey boo demee fële ca banque de sang ya manoo fa xàmmee déreeti géwël ak déreeti géer bari na géer gu la di dox sol nañ ko dereti géwél bu yàgg te xamu ko bari na géwél bu la romb sol nañ ko dereti géer bu yàgg te xamu ko xam nga lan la ci yàlla jublu mooy ngeen xam ni yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum Sidi Mbaye tafsir Abdourahmane Gaye Ibrahima Ndiaye saala biige yàlla ne xam leen ni maam ji moom benn la maam ji benn la ñu ne yàlla kan mooy maam ji mu ni aadama ak awa waaye yàlla lu waral nga def population yi ak giir yi mu ni shuuban wa qabaila boo wàccee Mali di wër Ibrahima mais mën nga sonn mais boo nee Ibrahima Njaay ñu ni la Njaay santu Njaay de Sénégal la ëppee nga di tëll Sénégal ni Ibrahima Ndiaye laay wër ñu ne la Ibrahima Ndiaye bi ngay wër géwal la wala géer gis nga xabaa ila nga daan ni Ibrahima Ndiaye bi may wër géwal la ñu ne la ah boobu saala biige la am na Ibrahima Ndiaye mais bi ma xam bi dëkk fii géer la yow bi ngay wër géwal la ñu ne waaw ñu ne la booba géew booba Ibrahima Ndiaye saala biige la day yomb yàlla nee na bu ma leen defee ay population def leen ay famille li taarafu pour ngeen gaaw a xamante la xamoo ni xeet yi ak sant yi ak waaso yi li ko waral du dara lu dul ay marque la yu ñu yàlla di marqué pour ñu mën a xamante waaye yàlla ne inna akramakum inda allahi atqaakum bàyyi leen xel ni gënante nekkul ci tur gënante nekkul nekkul ci sant gënante ci juddu ñu ne yaa rabbi fan la gënante ne mu ne ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon mbir mi ragal yàlla la ñu dalal Cherif Ibrahima Aidara Tijaani boroom gàmm gi boroom luga boroom Wakaam mais yéen rumtu salaatu affaire bi dafa tombé nii wala lan la man dama gis sëñ Xaadim Mbàkke ñëw sol weex man ma ñëw sol weex Sëriñ Ibrahima ñëw sol weex te bi ñuy sol weex alayka ya dar salaam xud bi yadi ya sayidi waaw waaw rumtu salaatu wassalaam ay waay min malikin mulki salaam loxo ca kaw alayka ya daari salaam waaw xud bi yadi ku sopp yonden loxoy ca kaw rumtu salaatu assalaam min salaam sëriñ sam alayka ya daari salaam خذ بيدي يا سيدي واو قمت الصلاة ku bëgg jàmm yëkkatil sa loxo ca kaw kaw kaw kaw malikil mulki salaam yàlla may nu jàmm alayka ya daari salaam tafsir xud bi yadi ya ku sopp yeneen loxo yi ca kaw rumtu salaatu assalaam من مالك ملك السلام عليك يا دار السلام خذ بيدي يا سيدي ورمت السلام تانت بنا نيب جهن تلخن يو أمال لن تجام من نيب إن مالك ملك السلام عليك يا دار صلاح خبي قصب سري فلمك الله خيرتك ورمت الصلاة والسلام من مالك ملك السلام عليك يا دار السلام حبيبي هدي يا سيدي سنسام رمت الصلاة والسلام رمت الصلاة مالك الملك السلام عليك يا دار سلام لا اله الا الله خذ بيدي يا سيدي تفسير غير الصلاه والسلام من مالك الملك السلام عليك يا دار السلام خذ بيدي يا سيدي jërëjëf Sidi Ahmed jërëjëf Sambou Chérif ñu ngi lay ziar Chérif